bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu wassalaamu ala ashrafi al anbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sala allahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahuma callimna maa yanfacuna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 na ngi leen di nuyu nuyoog islaam te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu réew mi fm 97.5 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi ci waxtu bi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame ki ñu jàppandalal si wollum xarala gi mooy suñu mbokk di Basiru Cissé mbokk yi yéen a ngi fàttaliku ñu ngi dégmal ci xew-xew su mag boo xamante ne incha allah daanaka ñu ngi ci biir xew-xew bi ñu ngi ko doon séentu buur yàlla tabaraka wa taala dogal na ba fekkee nañ ko ci jàmm ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala lépp liñ ci jaamu yàlla yal na ko buur yàlla nangu muy xew-xew diine ju mag boo xamante ne mooy iidul kabir al mubaarak aw iidul adha al mubaarak muy julli tabaski bu mag bi te barkeel yal nañu ko yàlla nangul amin ya rabbal alamin yéen a ngi fàttaleku ñu ngi doon waxtaan ak yéen lenn ci xew-xew su mag yu nga xamante ne xew na ci fukki fan yu njëkk yi ci weeru tabaski te mooy weeru zilhijja bu ñu xew-xew yu mag yooyu ñu ne mooy discussion ba jaar diggante yonentu yàlla ibrahim ak doomam di yonentu yàlla ismail alayhimu waaye ñu ne buur bi tabaraka wa taala gëj na ci jamono woowu ci waxtu wi nga xamante ne mooy fajar ak fukki guddi yu njëkk yi nga xamante ne mooy wala yalin ashr ndax borom bi tabaraka wa taala nee na ci alquraanul karim ba jullit ñu yore ci kaw suuf si borom bi ne maa ngi gëñ ci jamono bi nga xamante ne mooy waxtu yi fajar buñ ne waxtu yi fajar nag keroog yi yéen ngi fàttaliku lépp lañ ci waxtaane woon borom bi giñ ci waxtu yi fajar bu fenke waxtu yi fajar bu xare la ci xew yépp ak walla yaalin ashr ak fukki guddi yi nga xamante ne mooy njëlbeenu fan ci weeru tabaski ak la ci xew yépp borom bi tabaaraka wa taala daldi giñ ci jamono ak ci waxtu jamono mooy fukki guddi yu njëkk yi ci weeru tabaski waxtu mooy waxtu wi nga xamante ni mooy waxtu yi fajar kon buur yàlla bu nee wal fajir nee na mu ngi gën ci waxtu yi fajar la ciy xew ak na mu mel ak importance ba nekk ci waxtu yi fajar ndax bokk na ci rekk ñu doyloo ci junj ñu ne wa quraanul fajir wa quraanul fajr inna quraanal fajr kaana mashhuuda borom bi nee na ak alquraan ba jullit bi di yëkkati ci jamonoy fajar moo xam ci ginnaaw imaam bi nga nekk mu di ko jàng ci jàkka ja moo xam danga joxe julli ba nga doon julli ci jàkk ja nga toog jàng alquraan nee na bépp baat ba nit ki di yëkkati ci njàngum alquraan ci waxtuy fajar njàng boobu nga doon jàng alquran ci jamono yi fajar alquran dalay seede ne bokk nga ci ña doon ubbee say bés ci jàngum alquran keroog bés penc alquran dalay seede ci loola ndax yàlla ki muy doyloo yónnee ko di ar mustafa mustapha sallallahu alayhi wa moo ñu wax ci xadiisu abi umaamata ne ñu iqra'u alquran dee leen jàng alquran fa innahu yaati yowmal qiyaama ndax alquran boobu day dikk ñoo taxaw bés penc mu doon aji ràmmali asxaabihi ku ko waayoo woon képp ku waayoo alquran nga safoo ko faale ko jox ko gëdd xam al xam alquran lan xam ñoñu alquran ñooy ñan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma yàlla yónni ci askan bi ci xeet bi yonent boobu moo ñu ne dee leen jàng alquran ndax keroog bés pénc alquran day dikk taxaw daal di la ràmm ki ko doon jàng ki ko doon waayo ki ko doon safoo ki ko doon yittewoo alquran day doon avocat bi nga xamante ni keroog bés pénc alquran day ñëw plaider la sa bàkkaar ya nga doon jëf fii alquran day doon kilo la war a mën a ràmm keroog bi pénc kon yalla nañu yàlla déggaloo maana xadis bi yal nañu yàlla jàppandalal ñu war a mën a dund la xadis bi wundu amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot waaw noonu la borom bi duggee ci saar bi nee na wal fajar maa ngi gëñ ci waxtuy fajar ak la ci xew borom bi teg mu ne ak wala yaalin ashir fukki guddi yu njëkk yi ci weeru tabaski ak lépp lu ci war a xew moo yàlla lu tax boo toppee saar bi dinga xool dinga gis te dinga xam la tax yàlla géñ ci waxtu bañ naan fajar ak la yàlla géñ la tax yàlla géñ ci fukki guddi yu njëkk yi nga xamante ne moo nekk ci weeru tabaski di zilxijja bokk na ci rek borom bi tabaraka wa nee na ci suratul xajj ngir ngeen màggal borom bi nga xamante ne moo leen wur wërsëgal la nga xamante ne moo nekk la ngeen nekkee ci fukki fan yu njëkk yi ci weeru tibaski moo tax bu ñu demee xool ci suratul baqara borom bi tabaraka wa taala mu ngi baaxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci suñu téere bu mag bi di alquranul karim qaala allahu taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق wala jidaala fi lhajj borom bi tabaraka wa taala moo ngi nii di won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak xeetam ana wan teggin la ñu war a tegginoo jamono bi nga xamante ni ujaaj ba war a dem baytullahi alxaram joxe njëlbeenu mujjanteelu ponku islaam ca baytullahi alxaram xam ngeen ni njëlbeenu ponku islaam mooy shahaadatain mooy njëlbeenu ponku islaam shahaadatu an laa ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah ñaareel bi mooy wa iqaami salaa yow jullit bi seede nga ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ko dul yàlla te yonent bi muhammad digg la yàllaa ko yónnee ñaareel bi ngay taxawal julli jamono bi nga déggee nodd di ko joxe ci béréb bañ ko war a joxe ci néegu yàlla yi ñetteel bi mooy wa ita i zaka joxe azaka ñeenteel bi mooy wa sawm ramadan na nga woor weeri koor juróomeel bi bu fekkee ne mooy wax hajjul baytillahi alxaraam dem ajj ci néegu yàlla bu tedd boobu nekk makkatal karam ci ki mu yemb benn yoon dong lañ la ko sant yeneen yow si toftal yooyu yëpp ay naafila la kon yàlla nee ci alquran yàlla suñu borom tabaraka wa dafa am jikko ba doomu aadama bi di jikkowo dafa am jikko ba jullit bi di jikko ngir mu war a mën a dem aji mag yàlla ne formation baa ngi ni kaay leen ma woon leen la nga xamante ne noonu ngeen war a tàggatee seen bopp borom bi tabaraka wa taala daal di ko message ci téere bi nga xamante ne moom la jox ndawam di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi moo tax yonent bi nee na ci maanaa xadis xudu anni manasikakum na ngeen ma toppandoor ci aj ba di aj na ngeen ko defee comme ni ma ko santaane wala comme ni ma ko defee moo tax borom bi tabaraka wa taala ne ci téere bu mag bi ci alquranul karim ca suratul baqara borom bi ne alxajju aji makka de béréb la boo xamante ne ñëpp a ko xam alxajju aji makka de ashurun ay weer la yoo xamante ne maalumaat ñëpp ko xam alxajju aju makka tout court ay momaa la weer la woo xamante ne maalumaat dafa birte leer nañ moo tax yàlla ne alxajju dem aji makka ashurun ay weer yu toftal la ay weer yu limu la yoo xamante ne maalumaat ñëpp ko xam waaw leer na nañ amul benn sikki sàkk incha allah aaya bi dina ko leeral ci kanam ci maanaa tafsir bi yàlla nee na kon ndegem aj màkka dadi moment wu ñëpp xam weer la bu ñëpp xam ay weer yu ñëpp xam la kon fa man farada fiihinna al hajj képp a koo xamante ne faratal nañ aj ci yow te namm nga kaa def war ngaa waajalal sa bopp ngir dem aji màkk ah yàlla nee na nag ma mee nopp ma dee la ya nga xamante ne noonu nga war a nekkee yàlla nee na falaa rafasa waloo nekk di doon ku bari caay-caay wala fusuuqa waroo fi nekk kii làmboo lépp lu ñaaw wala jidaara waroo doon kuy dàgg sante fil xajj ci jamono bi nga waajalal sa bopp ngir dem aji màkk kon da nga war a raxas sa xol rafasa rafasa mooy caay-caay boo xamante ne ñëpp la ko xamee woon kon dafa am fi nga war a dem kon caay-caay boobu danga ko war a teg ci suuf waaw bu dund caay-caay boobu jamono bi nga waajalal sa bopp dem màkk wala fusuuxa lépp lu ñaaw lépp lu rafetut lépp lu normalut waroo ko inculquer ci sa jëmm ji waroo ko def waroo ko wax waroo koo doxee wala jidaala waroo fi nekk di dàgg sante ku la xuuri nga xosi ko ku la xosi nga xuuri ko ku la ne maala ne nga ne ko mooma ne yooyu danga ko war a dindi ci sa jikko yi su ko defee yàlla nee na yii jikko rafasa fusuuka jidaala ñiti jikko yi bëgguma ko ci képp koo xamante ne war nga tàggatal sa bopp pour dem aji màkk na nga raxasi yii ci sa jëmm ji pendant avant pendant et après waaw jikko yi waruñoo nekk ci yow avant waruñoo nekk ci yow pendant waruñoo nekk ci yow et après waaw avant ngay dem màkk waroo nekk ki lamboo jikko bu ñu naan rafasa waroo lamboo jikko ju ñu naan fusuuq waroo lamboo jikko bu ñu naan jidaal waaw boo nekkee ci biir màkk tamit sol sa yére armal waroo lamboo jikko bu ñu naan rafasa waroo lamboo jikko bu ñu naan fusuuq waroo eh, lamboo jikko bu ñu naan jidaal waroo fa nekk di jëf yëfu caay-caay waroo am jikko ju ñaaw waroo fa nekk di dàgg sant ci biir ajj yàlla suñu borom tabaaraka wa taala lii la tere képp koo xamante ne bëgg nga waajalal sa bopp ngir dem fi nga xamante ne mooy makkatal mukarrama kon borom bi tabaaraka wa taala daal di continuer ci aaya bi léegi mu ne wa maa tafaaluu min xayrin yaclamahu llah wa tazawwaduu fa inna xayra zaadi taqwa wattaquuni yaa ulil albaab borom bi tabaraka wa taala gannaaw bu mu teree ujaaj baytullahi alxaraam koo xamante ne moo xam góor nga yàlla dalaa tere jikko yi ñu lim ci aaya bi waroo lamboo jikko bu ñu naan rafasa waloo làmboo jikko bu ñu nan naan fusuuq waloo làmboo jikko bu ñu naan jidaal jidaal dagg sante waloo ko fu fusuuq mooy bépp jikko bu ñaaw waloo ko làmboo walo làmboo jikko joo xamante ne mooy sax su ko defee yàlla nee na bu leen ko def jamono bi ngeen waajalee seen bopp psychologiquement financièrement ak physiquement ngir ngeen dem aj màkk waruloon làmboo jikko yi ma leen limal nii jikko yi daal bëgguma képp ku war a ñëw sama néeg ngir motale dernier ponk islaam jikko yi moom nanga raxas ci sa xol ba mu set wecc moo tax mu ne la fil xaj moo tax nga dégg aaya bi ne fa man fa man farada fihinna al hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fi lxajj yàlla nee na képp ku waajalal boppam ngir mu dem aji màkk képp ku waajalal boppam ngir dem joxe ponk bu mujj ci baytullahi alxaraam yàlla nee na nga raxas jikko yi nga xamante ne bëgguma képp ku may genese nga àndale jikko boobu jikko boobu na deñ ci yow waaw na rafasa deñ ci yow na fusuuq dañ ci yow na jidaal dañ ci yow su ko defee yàlla ne wa ma tafaalu min xayrin xam leen ne amuleen dara li ngeen di jëf ci lu yiw lu duut yaalamuhu llah yàlla xam na ko waaw waaye nag la ma gënal mooy lépp li ngeen di jëf ci yiw moo xam lu feeñ la moo xam lu nëbb la xam leen ne man yàlla xam naa ko waaw te lu baax lépp li ngeen jëf ci ginnaaw bu ma leen teree ngeen raxas jikko yu salte yémane ngeen raxas ko seeni xol ngeen raxas ko seeni jëmm leneen lu waaye def lu baax man yàlla xam naa ko te accepté naa ko su ko defee dinaa la fay moo tax mu ne wa maa tafaalu amul dara li ngeen di def min xayrin ci lu yiw lu lul yàlla xam na ko waaye nag moo tax yàlla daal di ñu buuñaa mu jox ñu kado bu toll ni mu daal di ñu libeere mu ne ñu wa tazawwadu bu ngeen joxee aji màkk ba pare bu ngeen joxee faratay aji màkk ba noppi wa tazawwadu na ngeen gànnaayoo wa tazawwadu na ngeen géem a fàggu yëbbal wa tazawwadu na ngeen jënd ay yóbbal na ngeen dajale ay yóbbal waaye nag yóbbal bi nga xamante ni moo gën ci yóbbali nag ah mbokk yi loolu nag yàlla moo ñu ko baaxee yóbbal ba gën ci yóbbal yi loolu bokkul ak suñu yóbbali àddina yi de waaw ah, yàlla bu la ne defal lii waaye li gën ci yi ma la sant nga def ko fu mu la joxoñal xamal ne foofu la sa njëriñ nekk yàlla daf ñu ne wata zawwadu na ngeen sàkku ay yóbbal bu dee fa yem kon kenn ku nekk mun ngaa tànn la nga xamante ne moom nga foog ne loolu mooy yóbbal jubaa waaye nag yàlla mi ñu bind xam lañuy njariñ xam la suñu njariñ nekk moo tax mu ne ñu wa tazawwadu bu yeboo na ngeen sàkku yóbbal wa tazawwadu na ngeen géem a créer yóbbal ya ngeen di yóbbal de waaye nag kaay ma wax leen nag hmm, fa inna xayru zaad ah yóbbal ba gën ci yóbbal yi ngeen war a yóbbalante mu doon kado mu doon sérité sérité yi ngeen di fàggul seen bopp ah xam leen ne loolu daal mooy attaqwa gën ci sérité bi ngeen di fàggu ngir ngeen yóbbante ko loolu mooy ragal yàlla waaw ah, sérité yi ut leen lu leen neex jënd leen ci sérité yi li leen neex waaw képp ku waay bëgg lépp lu waay bëgg jëndee ko comme sërice waaye xam leen ne fa inna xayra sëri ci bu gën a matale sërice sërice bu gën a baax ci sërice yi sërice bi man yàlla sërice bi ma gën a bëgg te ma bëgg leen ko mooy at taqwa mooy ragal yàlla na ngeen ma suuraale si seen biir na ngeen ma suuraale seen biti fu ngeen wéet na ngeen ma suuraale fu ngeen nekk wéttaliku fa na ngeen ma suuraale ci lépp moo tax mu ne wa tazawwadu na ngeen ut sëri ci ngeen fàggu yóbbal waaye nag fa inna xayra zaad sëri bi gën ci sëri yi fa inna xayra zaad waaye yóbbal bi gën ci yóbbal yi mooy lan urus déedéet donte baax na zam-zam déedéet donte baax na de tàndarama déedéet du boobu de donte boobu tamit baax na de kol kurus parfum lépp baax waaye yàlla xam na loolu yépp waaye waxut loolu fi mu ñu joxoñal fii mooy fa inna xayra zaad yóbbal ba gën ci yóbbal yi sërice ba gën ci sërice yi mooy lan attaqwa na nga sóoru yàlla ci sa lépp nanga nga suur yàlla ci lépp ndax baat bi ñëw na ci aaya bi ñaari yoon moo tax nga déggee aaya bi jeexee wattaquuni na ngeen ma suuraale wattaquuni na nangeen ma bàyyi xel wattaquuni na ngeen ma ragal yaa ulul albaab yéen boroom buntu xol yu yanj yi képp ku yàlla yombalal nga am buntu xol yu yaatu di tolare lu bëri di sóor yàlla ci lu bari di xalaat màggaayu yàlla ci anam yu bëri ndax fa nga jóge ko fa la islaam wàcc ak na mu wàccee ak si ku mu wàcc kooku tey buñ lay wax ne ñu joxe woon seeni bakkan fii lañu desoon soxna su deretaam njëkk tuuru ci islaam di sumayya radiyallahu anha buñ ne la fii la tëdd nga ne waaw kañ su ko defee ñu won la ne asadullah di hamza bin abdul muttalib radiallahu anhu ñu ne la moom fii la tëdd subhaanallah nga gis ay kawtiif yoo xamante ne ay jëmm doomu aadama ñoo joxe seeni bakken seen bakken des ngir li ilaa i kalimatu laa ilaha illa ngir baatu seede bi daal di jib sa yow nga gane si àddina fekk loolu fii yàlla baaxee nga di ko dund ba yàlla baaxee la nga dem gis ña taxawoon tem ne soccet ba baat boobu jib si kaw nga dem fekki leen fu ñu tidd ñu ni la fii mooy bërëbu nangam fii mooy bërëbu saxaaba nangam nga def sa kullu ziyaar subhaanallah bu yàlla ne la yóbbalanteel jëndal yóbbal jëndal sëri ci bala neex waaye gis nga ñooñu nga doon ziyaar nit lañu ni yow waaye ñooñu ñoo joxe woon seen bakken ngir yow nga mën a dund diini bi tey yaa ngi nii ziyaar nga leen ragal yàlla ak topp yàlla ak bëgg yonent bi moo tax seen bakken des ci bërëb bi kon yow boo demee bi ziyaar leen booy ñibbi danga war a ànd ak ragal yàlla allahu akbar ñii ñooy sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain ñii ñoo joxe woon seen deret ñii ñoo joxe woon seeni alal ñii ñoo joxe woon lépp lu ñu yoroon ngir diini yàlla bi taxaw kon bu la yàlla ne wa tazawwadu na nga ut yóbbal wa ut sërite waaye xamal ne sërite bu gën a gën ci sërite mooy ragal yàlla yàlla ñu yàlla may ragal yàlla yàlla ñu yàlla ragal yàlla mbokk yi aaya alquran bi ko war a bàyyi xel rawatina yow mi yàlla yënke wal nga dem aji mag yàlla buur bi tabaraka wa ubbil na ay porte ubbil na la bunt ne la jëndal li la neex jëndal sërici bu la neex waaw waaye sërici ba gën ci sërici yi sërici ba ma gën a bëgg nga yóbbal nga def ko sa yóbbal mooy attaqwa moo tax aaya bi ne fa inna xayru zaad yóbbal ba gën ci yóbbal yi mooy attaqwa ba tax na borom bi tabaraka wa taala ne wattaquuni na ngeen ma ragal yaa ulul albaab yéen borom buntu xol yu yànji borom buntu xol yu yànj yi yal na yàlla di waxal subhaanahu wa ba léegi béréb boobu noonu mooy béréb bi nga xamante ne fala makan bu sell nekk nga xamante ne mooy arafa mën na arafa ñu ne benn nanda foy foy woo xamante ne fala ñëpp di dajee mooy bésu juróom ñeenteelu fan ci weeru Tabaski mooy neuvième jour bi woor ko ngëneel ba fa nekk ak taxawaay ngëneel ba fa nekk xam naa ne du ñàkk ñu yem ci woor ba ci nekk su ko defee bu ñu yàlla bàyyee ba ñu dellu si waat incha allah beneen jamono ñu dugg ak yéen ci taxawaay arafa waaye fu ne nii dinañ leen dégtal ngëneel ba nekk ci woor arafa jëlee nañ xadis bi ci saxaabi bu ngi naan abi qataadata radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam su'ila an sawmi yawmin arafa fa qaal yukaffiru sana yukaffiru sana almaadi walbaaqi rawahu muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu saxaabi bi ngi naan abi qataadata radiyallahu anhu abi qataadata radiyallahu anhu nee na dañoo laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko lu aju ci woor yowmu arafa mooy woor juróom-ñeenteelu fan neuvième jour ci weeru tabaski mu tombeek taxawaayu arafa ca makkatal mukarram fa qaal yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ba fa nekk mooy yukaffiru sanatal maadi wal baaqi day jéggal dañ la ciy faral baakaaru at ya weesu ak at yay dëkkmal si loolu ku mel ni man bu ko naree laaj loolu naka la mun a nekkee ñu ne ko tontu bi mooy xanaa du téléphone portable bi nga yor sa bopp téléphone portable bi nga yoreel sa bopp mu nekk ci sa disposition xanaa du message ya nga enregistré woon ci 2023 am na fa bouton buñ la fa bindal ñu bind fa supprimer bu toll ni boo bëggee effacer bépp message ba nekk ci sa téléphone ca 2023 xanaa du boobu see bouton boobu message yooyu dañuy effacé wu bu dee loolu mooy axa kañ kon war nga mën a gëm ne bu nu bu la yonent bi ne woor yow mu arafa jéggalaakoor boo si fàggu mooy bàkkaar ya nga defoon daaw suñu mbokk di Mohammed Diallo yal ko yàlla yokku wér ci mosquée Aslem Grand Yoff moo ñuy baaxee xam-xam bi mel nee ma woor yow mu arafa dafa mel ni rek nga yore sa téléphone portable boo xamante ni da nga enregistré woon ay message yu bëri 2023 léegi nga dem ba gis ne message yooyu soxlaa toow leen bëgg gis bëgg déglu waaw bëggatoo déglu message yooyu bëggatoo gis message yooyu sa téléphone moo ne bouton baa nga fa rek da ngay sélectionner message ya nga bëgg effacer nee na ma oustaz gis nga boobu say bouton message su deux mille vingt trois ak deux mille vingt deux dañ sa téléphone man ne ko oustaz wax nga dëgg de ma ne ma loolu xam-xam boobu la yàlla yenkeewal doomu aadama doomu aadama di ko diggal kon buñ la ne boo wooree yow mu arafa sa baakaar ya nga defoon baakaar ya nga defoon waaw baakaar ya nga defoon cinq ci ginnaaw dix ans ci ginnaaw voilà bu fekkente ne woor yow mu arafa woor bésu arafa mooy tax baakaar yooyu dañ ci sa registre kon war nga kaa woor te am na la yàlla di def ci woor yow mu arafa loo xamante ne loolu nekkul ci téléphone bi ndax téléphone bi loo fa mun a effacer mooy message ya duggoon deux mille vingt et un vingt deux deux mille vingt trois <laughs> waaw waaye message ya duggagul yooyu munu koy effacer ndax yooyu ñëwaguñ recevoir message yooyu ba tax na loolu nekkagul ci mémoire téléphone bi tax na mënu koy effacer waaye mbaaxu yàlla ci doomu aadama mbaaxu yàlla ci jullit bi mu ne la gis nga boo wooree yow mu arafa yonent bi ne maa ngi am njort bu rafet te yàlla da koy def mooy dañuy far bàkkaaru jullit ba nekk jullit te mu def bàkkaar bu wooree yow mu arafa dañ koy effacer bàkkaar ya mu defoon daaw ak bàkkaar ya mu nar def ndax yàlla xam na ne jullit sama jullit sama jaam sangam mu bokk ci xeytu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nar naa def bàkkaar tel tel jour tel heure tel mois kon bàkkaar yooyu muy waaj a def ndegem woor na yow mu arafa effacel naa ko lii ifasal naa ko lee sélectionnel naa ko bàkkaar ya mu dara def hatta boo ko defee sax wallahi yàlla dala koy jéggal surtout boo jéggaloo mu gën la kaa jéggalal moom moo tax yàlla mu ne wa yubaddilu llahu sayyi'aatihim xasanaat yàlla day soppi seen ñaawteef yi def ko du yiw mbokk yi diine bu dul diine islaam gisuma beneen diine bi am opportunité bi ni mel bénéfice bi ni mel amul benn diine buy diine ci kaw suuf si li am ki am opportunité bu toll ni wala bénéfice bu toll ni wala buñaa bu toll ni kon yow mu arafa mu ngi ñëw yal na ñu fi fekk buy dem yal na ñu fi bàyyi waaye lépp lu ñu fa jaamu yal na yal na ko buur yàlla nangu moo tax xadis bi nga xamante ne mooy si siyaamu yawmu arafa jëlee nañ xadis bi si abi qataadata radiallahu anhu yan na ko buur yàlla gërëm nee na naka suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne dañ kaa laaj su'ila an sawmi yowmu arafa dañoo laaj yonent bi lu aju ci woor bisu arafa yonent bi ne alayhi wa fa qaal yonent bi nee na yukaffiru almaadi walbaaqi day far baakaaru at ba weesu ak baakaaru at bay dikmal si mbokk yi muslim moo solo xadis bi yal nañu yàlla may dégg ak topp xadis bi la muy wund yan nañu ko yàlla manloo amin ya rabbal alamin waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkati jotaay bi nar a jébbal bërëb bi ñiy joxe xibaar ci nasaraan nara leen jébbal béréb bi ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yaxfaza bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahumma aminna fi awtaanina wa aslih allahumma aimmatana wa wulata umurina allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu allahu akbaru kabira walhamdulillahi kasira wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu